amnistie kese mais attends euh, c'est-à-dire amnistie c'est une loi bu assemblée di jël mais tey jii nii euh, maanaam infraction bi dañ moom loolu amnistie rek ko mën a def ci bépp fu mu mënti doon mais Khalifa Sall ak Karim Wade dañ leen gracier mais l'infraction est toujours là saa yu jëlijee seen casier judiciaire fekk ko fa euh, inscription liste électorale yeeg conséquences yëpp a ngi leen di topp ba tey loolu moo tax amnistie moom mooy effacer peine mënatu mësul am daanaka sax amnistie te duñ amnistie nit mais ay fee la ñuy amnistie donc kon amnistie moom moom mooy loo xamante ne dañuy interdire sax nit ki ñu wax ko donc Ousmane Sonko buñ ko condamné dans cette affaire et que la condamnation devient définitive lii moom moo ciy am non mais bien sûr énorme parce que bu doon bu doon x ou y mën na bañ doon euh, lu jur problème mais Ousmane Sonko force est de reconnaître que c'est la première force de l'opposition pour ne pas dire la première force politique du Sénégal mooy Pastef mais Ousmane Sonko gis nga barki de boo njaay ci euh, meeting F24 Ousmane Sonko ñëw teewul moo fa mobiliser ñëpp te bul fàtte ne yaa ngi ci fiefu Khalifa Sall Khalifa Sall lui-même a été hué dans sa propre fief mobilisation bi yëpp Pastef la or Ousmane Sonko leader de Pastef n'était même pas pour dire que ni kii nga xamante ne moom lañuy ñuy topp ni moom mooy figure bi gën a emblématique ci euh, opposition sénégalaise li fi xew yëpp ci euh, réussite électorale euh, être tributaire de Yewwi Askan Wi wala de l'intercoalition Yewwi Wallu mais lépp lépp lépp lépp lépp coefficient personnel bu Ousmane Sonko la c'est pourquoi Barthélémy Diaz quand il dit moom moo gagné c'est problématique l'apport de Pastef dans la victoire de Yewwi Askan Wi Dakar l'apport de Pastef était très très très la preuve son premier adjoint au maire est de Pastef. mënuñu ko comprendre. comment loolu Barthélémy naka naka nga koy comprendre. ay at ñoom ñu ñoom ñi waaw. Barthélémy Diaz ak ñoom Bart Bart mosul gagné mairie Dakar. non du Bart mais xalifa ak Barth du benn. ah ñoo bokk ñoo bokk. 2009 France Siggil Sénégal moom moo dem élection jiital xalifa ci ville jiital Malick gàkku conseil régional parti opposition yëpp ànd ak ñoom mais boole woon na ci tamit benn politique euh, communicationnelle qui consistait à dire que boo leen voté les listes PDS Karim Wade mooy doon maire Dakar parce que Karim Wade était dans la liste quatrième position. waaw non waxuma nangu loolu rek Barthélemy Dias bu ne moom moo gën te Front Sénégal bi taxaw AFP LD PIT PS ñoom ñëpp nga ne moo gën léegi 2009 doucement rek doucement 2014 Barthélemy Dias dafay tête de liste nulle part fenn. Mermoz ah, Sacré-Cœur waxee léegi ba pare nga ne yàgg na gën. ah non kay yaa ko wax. Barthélemy Dias 2014 ñun. 2004 waaw waaw mais ñun. ñun ñun mais ñun mais ñun ak. ok docteur Malick Diop bokk na ci. PS euh, PS Malick bokk na ci. keneen ak keneen ak keneen l'apport de euh, Barthélemy Dias jamono jooju ça ne faisait pas zéro virgule zéro un pour cent lan moo tax Barth nekk maire Mermoz Sacré-Cœur de 2009 à 2014 ñemewul taxaw noonu tête de liste Soham Wardini moo nekkoon tête de liste Mermoz Sacré-Cœur 2014. Soham moom moo battre campagne. Mhm. soit moom moo gagné. Mhm. donc kon tey jii nii euh, lan mooy méritu Barth lu nekkoon ci liste bi parce que là à l'époque le suffrage n'était pas direct mais Barth deux mille vingt deux bii nii Barth narul woon bokk narul woon bokk parce que bul fàtte la ko opposé woon ak maître Moussa Diop man maître Moussa Diop moo ma wan ma gis parce que man it dama defoon benn post Facebook interpellé ko sur la question il m'a montré tous les documents que ni Barth bu demoon ak Barth Barth da koy gagné kan moo dox seen diggante ba retrait plainte am Ousmane Sonko am de fii la la fekk ñu ne charte Yewwi Askan Wi bépp maire bu sortant moom la ñuy reconduire kon Yewwi Askan Wi Soham El Wardini la waroon reconduire Ousmane Sonko moo ci xëpp amoo ñàkk xeexal Barthélemy Dias pour ñu reconduire ko kon yow euh, sa candidature pour mu valide Ousmane Sonko moo ko xeex sa investiture. pour mu effectif Ousmane Sonko moom moo ko xeex ba ngeen demee nag ci jongante ba Ousmane Sonko bàyyi Ziguinchor ñëw battre campagne à Dakar l'apport de Pastef décisif ci élection euh, bat nga bàyyi ba jour bu ñu condamné Ousmane Sonko ba du bokk jour buñ ko fàdd nga ne yow sa doomu nday la jour boobu nga ñëw di ko jiiñ nitu fitna di ko attaqué quoi naan Ousmane Sonko yaane ku dee sa euh, nday juraat Ousmane Sonko yaane nangam di ko attaqué quoi Barthélémy Dias et ce même Barthélémy Dias nous dit que ni doomu ndayam la. xanaa sa doomu ndey sax même bu juumoon bis bi nga xamante ne bis boobu lañ ko fàdd pour éliminer ko ci élection xanaa boo amee loo wax sax nga nga noppee ko waay waa ji ba muy wax déglul jibi waa bi muy wax dafa ne am na benn leaderu yeewi askan wi boo xamante ne problème bi du leaderu yeewi askan wi li mu doon wax après moo am solo mooy ne président nee na jugement première instance bi daf ñoo rëcc mais dinañ ko dabu mais moom bi muy wax boo mënee comprendre substance communicationnelle bi nga xam ne substance communication bi c'était pas le leader de Yewwi Askan Wi mais la volonté dite du président d'avoir un autre juge bu koy liquider mu Ousmane Sonko loolu la bëggoon a wax non doucement rek déedéet jarul na ngay ne commune non non non non non non non Jibi Ousmane Sonko bi mu doon wax jéemul woon weer wala ŋàññ leader yu Yewwi Askan Wi bi gisal président du loolu de. du loolu moom moo doon solos wax ji solos wax ji mooy li ñu ma condamné première instance na nañuy pexe pour yokk ko loolu la Ousmane Sonko bëgg a wax c'est-à-dire na nga xam parfois wax bi lan moo ciy solo wax bi loolu la woon donc Ousmane Sonko n'a rien dit de mal à Barthélémy Dias fii mu jaar moom yëpp gisoo ko investiture ba ba ci candidature bi ba gagné mais Ousmane Sonko wàccoon ak Barth qu'est-ce que Barth fait ba pare jugaat mel di présenter Ousmane Sonko comme nitu fitna la el Bastu kii disait que ni moom du mës a toog ak président Macky Sall parce que président Macky Sall mérité wul respect wu parce que président Macky Sall ne respecte pas les Sénégalais n'est-ce pas le disait moom moo wax loolu noonu yëpp ba pare xëy dem wax jeeg président Macky ba pare ne président Macky Sall nitu jàmm la Ousmane Sonko nitu fitna la dégg ngeen loolu wala déggoo leen loolu. nga ne c'est une émission bu bu Barthélémy Dias enregistré bi mu koy enregistré boobu verdict bi daanoogul. mais ci biir déclaration Barthélémy Dias dégg ngeen mu ne leen la candidature de Ousmane Sonko est problématique nan la ko xamante verdict bi génnagul Barth bi muy enregistré verdict bi génnagul donc ça donne tout l'air d'une théâtralisation politique mooy créer benn diversion pour gars yi nekk ci loolu di wax man ça me déçoit vraiment venant de Barthélémy Dias euh, démb euh, pour ne pas dire toute la semaine y a eu des mani des manifestations euh, ñu bëri ñàkk seen bakkan donc a quand la fin vraiment de cette histoire bi nga xamante ne ni tenir na tout un peuple toute une nation en haleine pendant plus de presque trois ans. waaw. Euh, ndax yaakaar nañ jeex euh, une bonne début mooy ne verdict bii nii bi dafa war a am ñu situer les responsabilités de li xew Sénégal yëpp donc la tenu de ce procès est un impératif vu les dégâts collatéraux yi nga xamante ne procès bi andi ko donc kon mënula ñàkk ci Sénégal